2021 dafa génn il a parlé de force occulte cette fois-ci aussi mu génnaat euh, il parle de force occulte, euh, maanaam nee na mbir mi dafa dafa dafa rax. mais mais euh, attendez. il le dit pour justifier les actes yi ñu nekk. di poser dans le cadre de cette affaire là. on xam nga fi mu nekk ba sànq ba tey ñu ngi làkk français. Mm-hmm. mais nañu waxtaane olof. Mm-hmm. tuuti xam nga bu ñu jógee ci olof bi. ñëw force occulte xam nga lu mu tekki. Hmm. mais force occulte mooy suñu affaire sëriñ ñeex jibar yeex yooyu loolu mooy occulte. le mot occulte on ne peut pas l'utiliser au Sénégal autrement que dans ce contexte là ñun la ñu xam ñun mooy lay occulte mooy sëriñ bu toog di gas ay kàmb di lekk ay gennu ay gennu sànq lañ xam ay gennu sànq lañ la ñu wax xam ay gennu mbëtt ah di buusu <laughs> ba may mun a xëy suba rek ñaaw loolu mooy force occulte si suñu aada ak ah, si suñu français ci suñu français loolu mooy force occulte mën na la des forces étrangères mën na la des forces qu'on nous a signalées et qu'on ne connaît pas mais quand tu force occulte mooy ku ñuy liggéey olof lay làkk français lan la bëgg a wax sama waay la de contre ma ko man contre ma kenn ñëpp dama laa xam miin leen mais dama toll niveau boo xamee ne dama bëgg ñu xam la ñuy def ñu xam la ñuy wax ñu moytu wax wax ju gaaw sa xooluloo ko say jëf sa warugar yam ci boo defee rek ñu xam ne def nga wax ji jeex na ku war a def day def ñu jeex wax jëf ji jeex na ku nekk dem sa yoon mais wax wax wax wax ba kaña on parle trop tout le monde parle trop lan mooy force occulte dans un pays un pays bu am toutes les gendarmeries l'armée les enquêteurs et toutes les relations internationales pour faire les enquêtes lan moo mën a occulte si Sénégal tey Sénégal dara mënu fi occulte lu dul sëriñ bu tëju si biir néegam <coughs> di baxal ay ay sindax xëy <laughs> kooku rek mën a wax yow tam <laughs> euh, euh, euh, tey dafa am Euh, ay forces yu def seen intrusion au côtés de nos FDS ñu leen di woowee ay nervis ah mais loolu force occulte non non non non non waxuma génn naa ci. Ah, force du force occulte yow tam di woowee ay nit la yoo xam ne du ñu soldat du ñu ay nervis alors au début dañ doon nier euh, seen seen seen seen seen existence mais pour ces événements de 2023 on a vu des gens. mais am na fépp on a opéré. loolu am na fépp côté des loolu am na fépp. ñu ngi leen di ñenn ñi di leen woowee force de soutien. loolu am na fépp c'est loolu am na fépp. ma ne c'est légal. 1958 yu mel noonu boobu sax indépendant bu ñu ba Senghor ak Lamine Gueye doon xeex xeexu métti yi. El Lobo El Lobo El Lobo acteur cinéma indien bu ñu tuddoon El Lobo le fou. lu lu lu fou ah benn euh, naaru përëñ yooyu daal euh, nekk nekk la ministre ñu koy wax El Lobo si dañ ko reyee ce sont ces de nervis euh, parti bu nekk da nga am say nit say xeexkat borom doole mais loolu mu ngi fi ba tey non milice privée ah, mais est-ce que milice privée war na opérer aux forces aux côtés des FDS milice privé man sama wàllu bopp bu fekkee ne am na bu fekkee ne am na si réew mi warul ànd ak alkaati yi ak gendarme yi waxuma FDS dama ne alkaati ak gendarme parce que les expressions là je veux dissocier force de défense de sécurité force de défense force de sécurité parce que force de défense et de sécurité c'est dangereux comme appellation Ah quand, bon oui, quand on dit force de défense, c'est pour nous défendre vis-à-vis de l'extérieur. Force de sécurité, c'est la sécurité intérieure. Moyen de défense et de sécurité rek ña ñu war a défendre ngi dugg si biir di xeex. mais xam nga l'armée génn na la gendarmerie mu ngi opérer la police mu ngi opérer. waaw te ñooñu de sécurité rek. moom la gënal non non nekkul force de défense la nga mujjee wax laa wax. waaw ah, mooy donc force de sécurité on va parler de la police. et de la gendarmerie et de ah, ñoom tuddee leen force de sécurité mais l'État dafa génn. non attends l'armée ba mu jotee yëf yi garaaw on a mis l'armée dans la rue kooku Senghor defoon na ko au cours des grèves de 1960. mais l'armée ne sort que quand le principe de l'intégrité territoriale est menacé. mais ça peut être menacé le principe de l'intégrité territoriale parce que s'il y a des tous les coins du Sénégal brûlés dispersés jusqu'aux frontières et si on tue tous les douaniers qui sont dans les frontières, qui sont sur nos frontières, l'intégrité territoriale est menacée. Donc on n'a plus de forces douanières qui sont militarisées pour protéger nos frontières. Donc c'est une question de peser le risque. Gouverner nag c'est prévoir. Gouverner c'est peser le risque. Gouverner c'est prévoir. Gouverner c'est peser le risque. Peser le risque c'est prendre le moyen adapté au risque qui vient d'être pesé man de su may gouverner loolu laay def ak ak théorie boo mënti andil parce que jàmm biir réew mi jàmm xale yi nelaw jàmm soxna yi dem marché jàmm nit ñi xëy di liggéey yi moo ma fi teg su may gouverner nag damay peser jël samay décision l'essentiel mooy na jeex. jëf alo euh, ñenn ñi ñay dugg si biir di sirax mhm. man mënuma si wax xawma leen gisuma leen. alors bu ma sañoon nag bu amee warul am bu ma sañoon. bu amee